tey dañ fi teew di recevoir euh, ndimbal boo xam ni dafa jóge ci le maire ministre monsieur Alioune Sarr euh, boo xam ni dafa jël ay matériel hygiène ñëw di ko dimbali waa Croix-Rouge ci liggéey bi nga xamoon def su le terrain euh, aujourd'hui kenn ku nekk xam na ni liggéey bi métti woon na ci ñun demoon nañ ba commencé manqué matériel mais heureusement tey yëg na ko biñ ci waxtaanee ak moom mu dégagé benn kit def ci ay matériel yoo xam ni moom lañ gën a ci terrain bi pour mën a dimbali askan wi waaye aussi pour mën a def suñu liggéey donc ñu ngi koy sant bu baax di ko di ko gërëm ci geste bi te di ko ñaanal parce que aussi loolu moo ñu ñu mën a continuer liggéey bi ñuy liggéey fii ci Notto ba liggéey bi am ba ca ba liggéey mën a am mucc ndax ba tey ji Notto Diobass yàlla suñu doom dimbali ñu amagul benn cas mais liggéey bi nga xam ne moom la ñu liggéey euh, matériel bi dañu gën a dimbali pour que ñu gën a am ay résultat kenn ku si nekk nga def la war surtout nag respecter mesures yi nga xam ne moom la waaye santé yi di joxe mooy euh, mesures yi nga xam ne moom lay wax chaque fois nit ñi di ko dégg si rajo mooy maanaam xale yi ñu téye leen seen kër yi waaye tamit euh, ñu fexe ba dispositif lavage des mains xale yi nit ñi di raxas seen loxo si si si si saa su nekk dafay am solo di utiliser gel bi nga xam ne aussi dañ leen koy jox waaye tamit li ci gën a am solo li ci gën a am solo mooy ñu bàyyi déplacement yi nga xam ne amul benn njariñ. ministre bi ñëwoon na fi euh, muy le maire Alioune Sarr ñëwoon def benn don ci commune bi. ñëwaat tey aussi yokk ci don boobu ndax bi mu njëkkee ñëw dafa jëloon ay gel ay saabu masque ak yi demee noonu waaye cet fois si mu boole ci ay quelques euh, denrées maanaam dund pour dimbale yenni daara yi ak yenn yi ñoo xam ne daal nécessité nañ ko soxla nañ ko. ci ginnaaw loolu tam mu am ñi mu appuyé mooy ñoo xam ne ñu ama am solo lañ ci askan wi muy waa Croix Rouge nekk ay volontaires yoo xam ne à part ministère de la santé ñoom ñoo ñëw en pole position pour xeex li nga xam ne mooy jàngoro ji donc ñu am fi benn section fii Noto. donc ñu appuyer leen pour euh, vraiment gën leen équiper ci liggéey bi am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def ci Sénégal yëpp rawatina fii ci Notto Diobass ministre bi di sensibiliser comme ni ko ñëpp di defee surtout euh, waa ministère de la santé vraiment pour ñu respecter li ñuy wax les gestes barrières nga xam ne tey euh, ñuy raxasu ak saabu vraiment di utiliser ay gel antiseptique mais aussi bu ñu naree sëqat vraiment def ko ci coude wala ay mouchoir à bu ñu ko amul yi nga xam ne daal vraiment ay ay gestes la yu am am solo mais bu ci gën a am solo aussi mu ñu éviter li nga xam ne mooy ndaje yi ndaje yu bari yi ak déplacement yi pour que vraiment ñu mën a xeex li nga xam ne mooy yaatal feebar bi. tourisme ak transport aérien bokk na ci secteur yoo xam ne ñoo gën a yëg li nga xam ne mooy feebar bi ndax dem beeg dikk bi dafa arrêté te Sénégal comme ni ngeen ko xam ne suñu tourisme dafa nekkoon tourisme boo xam ne ah dafa dépendre lu bari ci bitim réew. ñu bëri dañ doon ñëw fii euh, ñu dépendroon ci ay marché yu mel ne France Italie ak euh, li nga xam ne mooy Belgique mais fi mu nekk nii ak maladie bi lu a taxaw donc euh, ñun nag ñu ngi am li ñuy wax euh, liggéey boo xam ne dañ ci jublu am benn plan de relance pour que bu lii taxawee ak jàmm rek te ñuy ñaan yàlla gën teel ko saafara euh, ñu mën a faire face ak li nga xam ne mooy conséquences yi ndax lii dina am lu bëri lu ñu jural loo xam ne wax dëggu yàlla du noonu lañ ko bëggee waaye ministère bi mu ngi ciy liggéey ak acteurs yëpp pour que bu demee ba boobu rek vraiment ñu mën ko saafara ak jàmm